mbokki mi noonu yal nañ ko yàlla dolli bëggloo sunu cofeel ci Seydina Muhammad yal na ko yàlla gën a dolli ñaanati borom bi subhanahu wa taala yàlla mi am jàmm am salaam sutura àdduna ak alaxira yal na yàlla dolli nu ko defal ci daraje Seydina Muhammad a a euh, Muhammad yi nga xam ne ñoom itam duñu deñ euh, di xaar seen émission bi di siira ngir gën a yokk seen cofeel ci Seydina Muhammad xam nga la sama maam Seydil Haaji Maalik waxoon ne ëllëg du li ma julli laa yaakaar muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa laysa li amalun alqaaka yaa amali siwa almahabati wa taadimi wa sadami uh, wa taazimi wa sadami ak di ko màggal ak ku mën a jàkk xam ne dama bëgg yonent bi alayhi salatu wasalaam sama doxin yëpp di doxi di bëgg sayyidina muhammad ndax waxoon naa la barki démb ni la jamono munul dox te doxunu doxinu rasulullahi waxoon naa la ni la réew munul dox te doxunu doxinu sayyidina muhammad waxoon naa la ni la nit munul jàkk te jëlul ay jikko yi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jikko mi baax yooyu nag benn rek boo ko ci jëlee di nga defaru àddina waaye itam di nga defaru alaxira te moo gën a woyof ñëpp euh, ca mbaaxam nga ci yiwam nga daan jéggalee ko jëlale laata nga ubbi ligne bi mi ngi noonu téléspectateurs yi ñu ngi leen di xaar xaar soppee si ginnaaw Muhammad yi nga xam ni seen xol boo ko ubbee doo fa fekk ku dul yonent bi alayhi euh, euh, doon incha allahu taala ca Cité Lamine bu ko kenn wuute ren nag xam nga ma ko duppee soppee si ginnaaw Muhammad yi ba Hadji Mor Gueye ñaanal ko moom itam gën a barkeel euh, Mbaye Dieye maa la ci ndokkeel bu baax a baax a baax Moulay Abdul Aziz ña seen bis bi le 30 avril lay doon ca Pikine incha allahu taala euh, waa Daara sama jigéen yo euh, soxna Ndeye Fatou Gisee ak waa daayira ba waa quartier boobu yëpp le 28 vendredi 28 avril incha allahu taala ñoo nekk bu ko kenn wuutee waaye gàmmu télévision xam nga la 15 lay doon ca télévision Italie incha allahu taala Euh, ma jigéen yooyu la ñoom mami fa euh, soxna euh, mami Mbaw seen bis ba la 22 lay doon ca Italie incha allahu taala yal na ci yàlla yóbbu ci daraje sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soxna Yaasin ñoom it la 23 incha allahu taala bu ko kenn wuute maa ngi nuyu Abdoul Ahad Guèye ñaanati borom bi subhanahu wa taala tey jii ca Rufisque suñu baay Alxaaj Maxtaar Diop seen gàmmu ga njabootu Serigne Maodo Siga tey jii la ca Tëngéej incha allahu taala ñoo ak ñoom suba waa Jas lay doon Mouhamed Kabir Sène moo koy way Pape An moo koy firi incha allahu taala bu ñu ci xëy rek dem Richard Toll ñoom soxna Aminta Mbóoj seen conférence ba ànd ci waa daayira Rabiat al Adawiya ànd ceeg soxna Mul Xayri Dabaax nuyu ko soxna Yaasin Ndooy ñu ngi leen di ziar ñoom ñëpp ñaanal leen yal na yàlla yokku leen dëgëral incha allahu taala allah maa nga cay woo rek waa Dagana maa nga cay woo waa waa Xumma maa nga cay woo waa Richard Toll gépp waa waa ndombu àllarba ñoom itam incha allahu taala ñu fekk ñu foofu mi ngi noonu mbooloo mangoog xoolal gis nga mbooloo mangoog yàlla ko di nga gis mbooloo ak mbooloo fàqi ko wutal si la yow Sidina Muhammad salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah soxna si ñu lay nuyu ñu ngi lay teelloo ziar di la nuyu tur bi naka la Hadi Cissé Tëngéej waa kay Cissé bismillah Cissé Cissé ja jalaa sant Hadi Cissé ja Tëngéej waa kay ja ja nga sant waaw ja waa ah, sant moom day na waar ah dégg nga yow moom loo wax baax na damaa kontaan si émission bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. dama kontaan si li ngay wax si Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam. ñun amuñu ku dul Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. dañuy ñaan yàlla yàlla yàlla jàppale ñu ba leeram sax si ñun. amiin allahumma ba li nga xamante ne moom la ñu bàyyil si jikko ñu mën koo topp ba fekk ko ëllëg. amiin njabootam amiin ja amiin amiin. yaa tax ñu bëgg TFM. ndeysaan a jërëjëf ñu ngi lay gërëm la sant di la ñaanal yàlla fi nga bëgg àgg yàlla na la fa yàlla àggale amiin amiin ja amiin te ñu nit yàlla may ñu ba ñu nekk ay njabootu Seydina Muhammad yu mu nangul suñu cofeel amiin allahuma amiin ja jërëjëf jërëjëf dama kontaan oustaz moo tax ma woote merci jërëjëf a ngi waaw kay jërëjëf maa ngi nuyu waate nga jëf incha allahu taala kontaan nañu kontaan nañ Pape Kane Fall sama xarit boobu lee maa ngi koy nuyu oustaz Pape Kane moom itam nu ngi leen di ndokkeel ñoom itam waa Tëngéej yëpp ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral ci daraje Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu yàlla waxoon na ko yàlla waxoon na ko Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga mbooloo maa ngoog nga xam ni dëkk bii la juddoo waykatu arab wax na ko ne yow màkk day doy na la sëkk teraanga mooy juddoo gi fi Sidina Muhammad juddoo rek doy doy na la sëkk teranga mooy juddoo gi fi rasulaay juddoo nga xam ni kaaba gi ci yow la ne salaamaaleykum waaleykum salaam Pape la kooku na ngeen def man la Ndiaye Abdou fooy wootee nii Abdou Mbour laay wootee mais daayira étudiant yi laa bokk ah waa kay Ndiaye bismillah waa rajo bi wàññil rajo bi Abdou bi Abdou Abdou wàññil télé bi. waaw d'accord Serigne maa ngi nii di maa waa génn a génn naa na ngeen def. ànd alhamdulilah tabarakallah bismillah ñu ngi leen di ziar bu baax baax ànd. jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy. waaw di leen waa bu baax ak gàmmu zawi bi tam keroog macha allah waxtaan bi gàtt na waaye amoon na solo. lool lool lool lool. alhamdulilah jërëjëf jërëjëf waaw waaw waaw di la ñaanal yàlla aussi sa taxaw ci xadara bi ak rafet na trop jërëjëf jërëjëf yàlla jërëjëf Ndiaye jërëjëf waaw waaw suñu saat nga aussi sagu njabootu Hajj Malick lépp na radiyallahu taala anhu jërëjëf Ndiaye waaw waaw dañ lay ñaanal yàlla rek yàlla kattanal lay amin allahuma amin Ndiaye amin nga yeggali sa mission yëpp incha allah amin Ndiaye amin amin kontaan naa sëñ Abdou kontaan naa bég naa man nag maa ngi kawe na méttambadu incha allah incha allah incha allah waaw waaw mbuur incha allah incha allah jërëjëf jërëjëf Ndiaye incha allah voilà jërëjëf jërëjëf mbokk mi noonu soppe si dina Mouhamed Bango ñu ngi noonu soppe si dina Mouhamed Yango ndokkeel nag waa ZB Cheikh Sidil Hadj Malick yëpp ca seen gàmmu gu mag boobule 3 avril ndokkeel imam Modou Fall ñoom ñëpp ñu ngi leen ziar Hadj Doudou Mbaye euh, ndokkeel waa ZB bi yëpp Adja Ndeye Li Ndiaye ndokkeel ay soxnaam Hadj Maodo gàmmu ga tabarakallaahu nuyu sama sëriñ sëriñ Cheikh Omar Ndiaye sëriñ Habib Ndiaye ca Bousra sëriñ Cheikh Ndiaye Bousra Hadj Malick Ndiaye xalifa Ndiaye ma nga Busra sama xarit boobu lay sama sëriñ ñaanal leen yal na yàlla gën leen a dëgër Alioune Ndiaye Moulay Abdoul Aziz Ndiaye ñoom ñëpp waa njabootu sëriñ Ahmed Ndiaye arut gépp waa daara ja waaye nuyu nag sama sëriñ nga xam ne maag moom ñoo nekk doon ca daara ja di si Mouhamed Lamine Sy bu sëriñ Mbaye Mansour maa ngi koy nuyu maa ngi koy ziar maa ngi koy ndokkeel bu baax ca yiiwam nga ca mbaaxam nga ca xam-xam bu rafet ba salaamaaleykum maaleykum salaam waaw soxna si nu ngi lay Oumy Ba Colobane. Oumy Oumy Ba. Oumy Ba waaw. waa kay Ba naka waa Colobane jërëjëf Ba bismillah. ñu ngi fi ñu ngi rafetlu waxtaan bi bu baax. jërëjëf jërëjëf Ba jërëjëf. li ngay wax ci Seydina Muhammad neex na waxtaan bi doon waxtaan ci Taïf la waa passé neex na. ah alhamdulilah jërëjëf jërëjëf Ba. kontaan nañ ci trop. alhamdulilah alhamdulilah kontaan nañ baax a baax. di ñaan yàlla rek mu fayal ñu Tuuba moom mi ñu gën a xam gën a xamal Seydina radiyallahu taala anhu radiyallahu taala anhu di jikko yeeg taar beeg lépp macha allah ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñuy rafetlu émission bi merci beaucoup kontaan nañ bu baax a baax baax merci mbokk mi noonu euh, ñaanati yàlla yàlla doolu ñoo bëgg la bopp gis nga mi ngi noonu léegi arab bi ne ko yow màkka doy na la teraanga wax kaaba gi fi ne xajaratu nekk ci yow waaw safaak marwa nekk ci yow musdalifa ci yow munaa ne ci yow ci yow waaye doy na la sëkk teraanga muy mooy juddu gi fi Seydina Muhammad juddoo baax na jërëjëf mi ngi noonu mbooloo maa ngoog xoolal lii waaw te bi ko yàlla yónni da doon julli waaw ko yàlla yónni ñu nekk vingt person di nëbbuy julli trente neuf l'islam bi làqatu julli ñu dem ba ne quarante personnes boo koy xam nga nag lii nekk xoolal mbooloo lii ëpp na quarante konteel lii ëpp na quarante quarante laa wax de lii ëpp na quarante waaw yàlla laa seen lii ëppul quarante ah lii ëpp na quarante <laughs> personnes salaamaaleykum aleykum salaam. ah soxna si nu lay nuyu. waaw kay papa ñoo bi naka la. ah Diagne day Caba Diagne. waa kay Diagne Diagne fooy wootee. maa ngi woote fii ci Dakar amitié 3. amitié 3 Adja Ndeye Caba Diagne soppay waa kay Diagne. waaw kay papa jërëjëf man aan aan Yoro Seydi Ngone. aan. Yoro Seydi aan Yoro Seydi. ñu ngi lay ziar jaaj jaaj jaaj jërëjëf jërëjëf jaaj jërëjëf jaaj kontaan nañu bu baax bu leen ñu fàtte si ñaan yaa ah. déedéet papa duñ la fàtte kenn fàtte sa bopp ah alhamdulilah alhamdulilah jaaj baarikàlla baarikàlla waay yaay kontaan nañu waay jërëjëf waaye man tam kontaan naa papa yàlla yàlla kontaan amin allahuma amin jaaj amin amin yaa rabbal alamin ndeysaan jërëjëf jërëjëf jaaj mm. kontaan nañ maa ngi nuyu waa amitié yëpp Abdoul Aziz Wele ma nga dagana sama xarit boobu la yaay jërëjëf Diagne kontaan nañu ah, kontaan nañ jërëjëf jërëjëf Diagne jërëjëf jërëjëf eh, ñaanal soppay Sayyidina Muhammad yëpp yal na yàlla yokk leen dëgëral alxaaji Abdoul Aziz Wele ma nga dagana maa ngi koy nuyu di ko ziar ñaanal ko yal na ko yàlla yokk dëgëral Mouhamadou Makhtar Cissé directeur Sénélec sama xarit boobu la borom dagana eh, ñaanal ko yal na ko yàlla yokk dëgëral li mu yéene ci dëkk ba yëpp yàlla defal ko ko ak ci réew mi nuyu soxnaam yal na yàlla barkeel leen madame Cissé mbokk mi noonu yal na yàlla dollu ñoo bëgg loo Seydina Mouhamed yàlla dollu ñoo xiir ci boppam laasana ma jël benn benn ma ma jël benn téléspectateur rek nag ma arrêté euh, laasana in indil ma kaaba gi ma woon nit ñi lii ñu compté ba xam matul ëppul 40 personnes Seydina Mouhamed mi ngi noonu 40 personnes l'islam bi génn Omar nekkoon euh, lii lu xanaa nekko ñu dëgg xanaa du lii dëgg Moussa ne ko dëgg la waaye damay bañ saay saay màkk fekk ba tuddee Aba Xubaysi ba mu ko yuuxul ca kaw Allahu akbar sina Omar jàmbaar ja gàddu ja seem taxaw ci watu Bilaal waa Màkka génn ne ñii am nañ fi lu xew xanaa du Muhammad ibn Abdullah wax lii Aboo Jël génn Walid Walid ibn Mughira génn Xaaris ibn Nar génn Aswad génn Abdul Yaxus génn euh, Aswad ibn Abdul Yaxus sa Rukaana taak saay saay sa Rukaana dama mbër la woon moom dafa njool ponkal nag mbër yi ma lëpp doole njool ca kaw am doole waaye waaye nag nit mën naa ponkal te du am fit Omar ko ëpp fit ñu na ah, jàmbaar ja la mu ne yëgal ca kaw Bilal nodd Omar ne saxaaba yi topp leen ma wër mbeddi Makka di saxoo kalimatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi xoolal dëkk su ndaw su dëkku su ndaw la woon ay montagne wër ko waaye yonent bi alayhi salatu wasalaam xoolal Seydina Muhammad waaw ah, xoolal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi ca njàmbaar ga ca fitwa ca bëgg ca xam xam nga li mu bëgg nit day xam li mu bëgg waaw àddina moom boo fi nekkee naan diw def maa bañ ak aw diw diw daf may jëw ak moo tax man nañ ma dimbali rek ngir yàlla bu ma kenn wax diw dalaa bañ wala diw dalaa wax lu bon nañ ma bàyyi ma yaakaar ni ñëpp ma bëgg waaw waaw boo fi nekk naan diw dafa maa bañ ak da ngay sëriñ Cheikh wax na ko Mansour Mansour Mansour ne ko Mansour Mansour Mbaye bàyyi Mansour Mbaye yal na ko yàlla gën a bàyyi tawér mu ne ko naam si mu ne ko xam nga lu la li ma gën a bañ sama àddina mu ne ko si mu ne ko mooy ki ma teree naan sama café bàyyi Mansour Mbaye nee na mu ne sëriñ Cheikh waaw si kana la ñemee teree naan sa café yow mu ko mooy ki ñëw naan ma diw daf laa wax lu ñaaw wala diw daf laa bañ wala diw nangam ak nangam tere maa naan sama café moo nit da koy bàyyi waaw waaye am na ñoo xam ne seen yitte dëgg mooy bëgg laa déstabiliser toog naa bërëb sangam diw wax la lu ñaaw diw nangam ak nangam am na ci ñoom fekk dara du ci dëgg waaw am na ñoo ñoo lay wutal sax ay noon te loolu baaxul waaw bàyyi leen nit ñi waaw ngay ñu fexe yaakaar ni ñëpp bëgg nañu nekk ci lu baax waaw dañ yaakaar ñu bëgg ñëpp yaakaar ni ñëpp bëgg nañu laabal sa xol rafetal ko waaw nga xool Sidina Muhammad ñi ko doon def lu bon sax da doon bëgg ñu tuub dugg ci lislaam yéeni leen aljanna moom yonent bi alayhi salatu wasalaam waaw yéeni leen aljanna am na ñu ko doon def lu bon dañ ba ñuy duggee di tuub dugg ci lislaam keroog yonent bi alayhi salaam bég na ndax wu leen safara sallallahu alayhi wa sallam waaye xoolal mbooloo mi 40 personnes ñu ne bay julli 40 ba ñu génn mu convaincre 2 milliards wa innahum xaraju min baadi kawnihim zujlan wa kaana shihabu dini za darami sama Maodo ni wa innahum ni kisaaba yooyee ànd ak Moustapha mu tedd ma xarajo génn nañu leen min baadi kawnihi mi ginnaaw seenu nekk zoj lan 40 personnes rasayin 7 waaw waaw euh, jim 3 loo ma 3 plus 7 10 la wax lama ma laam gi 30 la 30 plus 10 40 wa kaana nekk na shihabu diine jum baa moom diine za dara mi di boromu tàkk jumu diine mooy boo demee dibitari am na matt mu mag boo xam ni mooy lakk moo fala fala tàkk-tàkk bay génnee mooy lakk dibi bi waaw matt moomu mooy jum waaw za dara mi tàkk l'islam bi nag tàmbale tàkk nag l'islam bi tàmbale yëkkatiku saay saay sa pexe yépp sooyi ba tey jii l'islam bi am doole ba groupe Futurs tey télévision Futurs Médias toog adduna bi yépp di bégge Seydina Mouhamed euh, laasana jërëjëf waaye laasana waa Amérique dañ maa yóbbante soxna Ummu Jamil Mousid Mouhamed mu ngi ñu ñoom Ndaw imam Zawi Sidil Hadj Malick ba ca Amérique waa Europe waa Asie dañ ma woo niiw na nga ñu gërëmal Youssou Ndour sëriñ Mansour borom daara ji dafa wax ni as gor bu ñu la defalee teraanga nga yoori leex naan dama ko yayoo mu ne ci baadoola la bokk yuusu ñoom ñëpp ñu ngi lay gërëm ngërëm gi nag tàmbalee ko ci njabootu Cheikh Sidil Hadj Malick gépp waaye ñi nga xam ne ni wuñu ci biir senegal keroog bi Serigne Cheikh génni ad làqoo radiyallahu anhu xalifa bi bi mu génni àddina ñëpp jaaxle ñëpp am naqar kenn liggéeyul kenn deful dara toog waa Amérique waa Europe waa Asie fépp ci àddina bi nee nañu seeni salle la ñu toog ñii toog ca zawiya ba ñii toog seeni toog gër toog jàkkaarloog télévision Futurs Médias dara ump leen ci biir dëj bi nee na loola euh, yow mi leen ko defal ñaanal nañu la waa zobi si la Xaaji Maalik ci Amérique amul benn julli bu nuy julli te duñu la ñaanal lii lañ ma wax waxal ñu ko Youssou Ndour yuusu wax naa la ko wax naa la ko ku la jege seetaan ko na la ko jottali su ma génnee naa jaar si bureau su ma la gisul secrétaire bi dinaa ko wax waa Amérique bég nañu Europe Asie yal na yàlla yokk la yàlla barkeel la laasana yàlla barkeel la sa cofeel ci Seydina Muhammad ah ma jël ma jël kii te kii ah salaamaaleykum. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Pape la waaw la béy kii kooku. wala Liberté 5. madame Niane ah Adja Adja Fat Diop soppay Seydina Muhammad. maa ngi lay ziar. waaw yal na yàlla sax nu ziar. jërëjëf jërëjëf Diop jërëjëf. kontaan nañ ci yow trop alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. waxtaan bi neex na macha allah. jërëjëf jërëjëf Diop jërëjëf. waaw yàlla bàyyi suñu kanam. amiin amiin Diop amiin ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. na yàlla nangu ziar. kontaan nañu kontaan nañu bu baax a baax. kontaan nañu bu baax a baax. alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. yal na yàlla wéral baat bi. amiin allahumma amiin amiin sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf maa ngi nuyu waa Libéré 5 yëpp nuyu ma waa kër gi incha allah. jërëjëf fa di xaar rek fa di la yii du yàgg fan yii incha allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Diop maa ngi tàggoo laasana nag maa ngi lay ñaanal xam nga yi nga may génneel maa ngi lay ñaanal tey ren nag yàlla na nga ziyaar ji rasulullah yi eh, incha allah taala bu déwénee jóga maay dem mooy am incha allah taala Babacar dem ñoom ñëpp ñu dem Muntaga dellu ah kan kooku am ah Jogomaay ah Jogomaay waaw Jogomaay moom moom moom it dina dem incha allahu taala Faatuwaar Caat sama rakk ju baax joojule ma nga Maroc maa koy nuyu nuyu bu baax a baax eh, borom këram hélas yal na yàlla barkeel leen maa ngi nuyu soppee Sayyidina Muhammad yëpp sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ah, xam nga waa ñoom Pape Cheikh Diallo ñu nga tey yal na yàlla defal leen fa jàmm ñu ñibbi siwaat ci jàmm ci darajey Sayyidina Muhammad mbokk mi noonu maa ngi leen di jox rendez-vous incha allahu taala aljuma ji di ñëw le 8 mooy suba maa nga jes waaye samedi prochain ca télévision incha allahu taala boobu kenn wutu maa ngi nuyu euh, Laay Maxtaar ci euh, Laay maa nga euh, Milan ñoom ñëpp ñoom it ña nga waajal seen bés ya ñaa ngi leen di ñaanal yal na yàlla gën leen ma nga Novora yal na yàlla barkeel leen ci daraje Sidina Muhammad am nañu mbégte Mami Maw le 22 incha allahu taala soxna Yaasin le 23 itali lay doon boobu kenn wutu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa اللهم إنها